salaamaaleykum àdduna wërngal këpp mbokk yi seetaan Tektal TV ñu ñëw ak yéen fii ci Bambilor lu yëngu nag la ko yëngal ko ëpp doole li waral ñu ñëw fii ci Bambilor ci heure bi li fi xew dafa doy waar lool te yéeme fii la di wax ne daal senegal loo ne amu fi am na fi loo xalaat ne nit sañu ko nit sañ na lu ko raw li tax ñu ñëw fii ci Bambilor dafa am góor goo xam ne que ñu ngi koy wax Alaaji sàmba Diop di jànkatu alxuraan di doon kuy def social yàgg def ci daara yi yàgg def ci alxuraan cosaanoo Kër mataar Diop doon koo xam ne que addunaam yëpp daf ko liggéey jaamu ko yàlla wéy ci ndigal nekk ci lu baax nga xam ne que lu man ci moytu lu yàllay tere rek mi ngi koy def lu yàlla bëgg rek mu ngi ciy def lu mu man nga xam ne que ci atam sax bu ko réerul daanaka téeméer war na mat mais yàlla dund cent vingt ans yu commencé ci ren rek bu mënee nekk yàlla ko yàlla def bu baax baax a baax a baax mais ku mel noonu di liggéey ak njabootam nga xam ne alxuraan rek la tal ak diine kum gis mu sol tubéy sax mu kaas ko gu góor gu sol kiloot sax mu ne la solal lu baax di dox ci sunna kooku daal am ay nit ñëw bëgg a teg suuf na ci alalam suufam ñu bëgg cee teg tànk suuf si nag mbir bi li ci daw yaram mooy magum jëmm ñu baaganteeloo ko presque lu ma douze heures de temps xëy bëgg koo forcé ko signalé ko li waral mu signé nag mooy dana am lu war a mat euh, trente deux hectares ci jamono ab Abdoulaye Wade ñu ko dooroon ci suuf te boobu dafa bañoon signé jaare fa lépp jaare fa tàbb géej ba nga xam ne mu ngi topp loolu ba léegi nii bàyyeegul ñii nag biñ koo ñëwatee benn société bu ñuy wax Séné Séné Ganja Séné Ginja waa Séné Ginja Séné Ginja la Séné waaw ay indien lan Séné Ginja gis ngeen ñu commencé nañ travaux yi ne ñee moom xaw ma néew néewal nañ leen doole ba nangu seen mbir wala jox nañ leen ko mais en tout daal toolu El ma Massamba Diop moom lii mi ngi ci. bun gaawul nag yéen autorités yi bu yéen gaawul caterpillar yaa ngi ne day ñaaw gaw gas fii bu gas fii rek lambaay ñaaw ñii nag danoo bàyyi ba élection yi dem ba nga xam ne que mi ngi ñëw ñu profito yakkamti ñëw euh, signaloo paa bi te biñ koy signaloo balaa loolu pour ñu am accès fii danoo ñëw accès dugg ci biir ne danoo soxla 2000 mètres 2000 mètres carré lañ soxla dem jox ko 7 millions 900 biñ ko joxee 7 millions 900 moom muy ñaxtu nekk dañuy introduction lañ bëggoon rek pour dugg mais biñ xasee dugg gis ngeen ñëw nañ jël fa euh, ay lu war a mat trois hectares bi ñu jëlee trois hectares ba pare dem di di di ko jox sept millions ah ins bi bi ngi toll dix hectares bi mu ñaxtu loolu bi ni waxtu loolu ku ni wax Souleymane Ndoye ñëw ne ko dinaa la may vingt quatre million yow nit ki kay doo ko jox alalam moo gën nga koy may Souleymane Ndoye nag mooy responsable Sénégindia Sénégindia nag ay indien lan dégg naa euh, te ñëw nañ nag xupputal paa bi indil koy jafe-jafe tegal ko lu metti ba nga xam ne que dafa tiit indil koy gendarme wërloo ko dëkk bi gis ngeen mi ngi nii léegi balaa ñuy def sax dañuy déglu Taxa Jóob moom comme bëggul feeñ mais li mu wax Taxa Jóob bu Amérique di doom ci El ma Massamba Jóob ñu déglu li mu wax te ñëwaat. waaw nañu wax aussi paa bi niñ ko bu ndoxataale xoqatal ko sonal ko terroriser ko yóbbu xelam fitam waaw paa bi dafa foogoon ne moom dañ koy yóbbu prison denc ko sànq ko duutu gis njabootam waaw loo tax mu signé waaw camion gendarme ñëw taxaw. tiim ko yor seeni i fetal ak seen i métraillé a akub indien nit ku xonq waaw mu mu daal di tiit mag la dafay tiit of course amul benn kii défense day tiit voilà dañ ko tiital mu signé. avant loolu dañ ko njëkkat jël fajar 9h di ko wër wër loo ci gendarme conk yóbbu fitam ba 9h ci guddi presque 12h de temps xam nga ne da nga koo da nga koo rey da nga koo terroriser 9h ci guddi 9h ci suba yow ci xale bu ñu la ko defoon trafic bi tàngoor wi nga dem. buñ la nee signal da ngay signé loolu loolu mooy mooy technique gu kii technique gu interrogation ay FBI ak CIA noonu la ñuy def buñ la bëggee wax loo da ngay wax doo nelaw mag moo xam ne ñetti waxtu yéen a juróom da ngaa war a nelaw noppalu ñu jël la fajar dugali trafic bi tàngoor bi saxaar si gasoil bi posen bi danga nga da nga da da nga wax da nga signé buñ la bëggee luñ la ne woon signé sa da ngay signé loolu moom amul sa wax waaw. léegi nag lu gën a dem di ngeen gën a comprendre. li nekk ci biir bu baax a baax a baax a baax lu mat dix hectares lan leen dëbb linjaa seen ginjaam moo ko def seen ginjaa lañ wax ne moo ko def bu dee defu leen ko rek ñëw leen leeral président Diomaye Faye euh, yéen da ngeen a ñëw ak président Ousmane Sonko ñëw pour defar yéen da ngeen doon nguur goo xam ne que pour néew gi doole ji ngeen fi taxawal pour dëgg ak yoon moo waral di bi ñëwee la xew xel mi yëpp xel mi yëpp xel yi daal kon nag liñ leen di ñaan fii ci Bambilor alaaji Masamba Diop gii nga xam ne kaw daanaka am na lu ma téeméeri at ah jege na ko yàlla na ko yàlla def mu romb ko mi ngi dund loo xam ne que wax dëgg yàlla eh, mi ngi metti te jaay ko doole rek di ko tegal kon man maa ngi wax kii di ministre bu ci mën a jàpp Cheikh Bara Ndiaye président waxal ma président Ousmane Sonko lii fat eh, farata la ñu taxaw ci léegi léegi léegi léegi góor gi nga xam ne que ba muy addunaam yëpp daf koo liggéey di ko jaamu yàlla di ko wéy ci ndigal toogul taxawul yar njabootam ci loolu bu baax a baax a baax a baax ñu bëgg koo dëmb li dëbb li njaa teg ko yi jafe-jafe mën na ñàkk kon nag euh, bu ngeen ñu toppee rek di ngeen gën a comprendre bu baax baax baax a baax mbir mi nan la demee léegi comme lii ngeen di gis lépp mënu ko comme tungali du teew ñu nataal dañuy dem ba ca alaaji Massamba jóg ñu dëkk dënk ko micro mu wax ñu xam nan la mbir yi demee bu baax a baax a baax El Hadj Massamba Diop kon léegi xaaral ñu ñëwaat fekkaat la Dakar waxaat après ñu ñëwaat fii ah allah. jërë ngeen jëf mbokk yi kon leen leen ko waxee euh, ñëw nañ toog ak kii di El Hadj Massamba Diop bu ciment jaaykatu ciment Massamba Diop bu alxuraan Massamba Diop moo ko Kër Matar Diop nga xam ne que ci lu baax la dund ay at yu bari ba jege lu ma téeméeri at di ñaan yàlla. mu dund ba weesu téeméeri at ak fanweer ak nangam. Hmm. ànd ak wér ak wér la ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam royukaay la ci liggéey royukaay la ci jaamu yàlla ndax dina def ci daara yi def ci nitti alxuraan def ci loo xam ne que alal bu lew lay dundee di ci dundee dundale njabootam ñëw ba heure bi nag am ñoo xam ne que bëgg nañ euh, teg ci pexe ba teg tànk ci ay alalam ak suufam du yombe noonu nag ndax lan am na ci loo xam ne que dëkk yoon lan nekk te ñii fi nekk léegi dañu am yaakaar ci ñoom kon ñu jàpp ne ci bu waxee ñu dégg ko dinañ xam ne terrain bu mu am ak hectare yu mu am loo xam ne que ëpp na fanweeri at loolu ko bëgg a nangu ci di di ñaari at day yomb ma Masamba Diop àdduna bi yëpp ñu ngi lay déglu pour xam mbir bi nan lay demee ginnaaw boo leen nuyoo. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bu ñu sant yàlla juy ci Yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi sant itam équipe bii nga xam ne suñu doom lañu ñëw ci nun te it ñoom seen taxawaay ci réew mi am solo lool ndax di sonn ci loo xamante ni pour dëgg feeñ lu am solo ndax dëgg rek mu am solo boo nekk ci dëgg yaa ngi ci yoon bu nekk ci dëgg nag buñ jéem a ndax loolu loolu yëpp adduna dafa ñàkk solo ñaari ay alxuraan buñ ko déggoon rek yu gàtt la fa man ya'mal misqaala usman shar bismillahi rahmaani rahim fa man yaamal misqaala zarratin xayran yara juróomi baat képp la di aaya wa man yaamal misqaala sarratin sarran yara kooku juróomi baat képp la fukki baat yooyu ku ko déggoon fas di jafe mën na àtte adduna lu waay def ci adduna adduna lu toll ni sarra suñ bopp te bopp nga ko denkel kon nag Sénégal war nañoo sant yàlla faskurooni askurkum yi waskurooli wala takfurani ginnaaw bu yàlla sante yuñ sant yàlla yuñ sante bu baax a baax a baax ñu ngi sant kilifa yii nga xam ne ñu ngi ci suñu kanam tey jii di nguur gu baax boo xam ne li ñu yëkkati kenn mënut a yëkkati lu ko paase ndax jub ak jubal ak jubbanti lañu wax loolu nag alxuraan boo ko jàngoon ba mu jeexat lool rek ci ne fii mu ne dajal ñu àdduna kenn mu leenu gën aw yoon Sénégal kon Sénégal gépp war nañoo ñaanal ñi fi nekk ca it sant yàlla bu baax a baax bi ñu amee équipe goo xam ne te ne bu tol noonu nekk ci li ñu nekk wax li ñu wax te muy dëgg ci ñoom kon ginnaaw ba ñu leen sant yàlla di leen ñaanal di leen jàppale di leen xam ne man bi ma déggiloo affaire bi am naa kersa nag foog naa ne yàq gi man wax sax waaye jegewu ko. ndax boo yaakaar ab dërëm la mili ëpp na milliard million. ëpp na ay milliards. Mm. waaw boo yaakaar benn dërëm nga yaakaaroon rek li nga yaakaar ëpp na million kon nag ku yaakaaroon ab benn dërëm ay million yaakaar naa kenn war ku dëkk ci réew waroo koo jéem a lëjal waroo koo jéem a sànq. jaay géej gi jaay suuf si jël alal ñu ci foqat ci ko fi du dëgg kooku loolu ku dikk. ne na ko nit ñëpp war nañoo sant ca koy as gor maa nga ab jullit war nga xam sant leen ñaanal leen xam ne yii fi nekkoon ñaa war nañ war na ñaan lu mel noonu dakk ci réew mi ak ci adduna bépp ndaxte kat ñoom mat nañoo jàppale mat nañoo ñaanal. président Sonko président président Jamal Jamal. Jamaay Faye hmm. waaw président Jamal. président Bassirou Jaxaar Jaxaar Faye hmm, hmm. ak. mu Sonko Mouhamed Sonko ñaar ñii seen xalaat kenn mënut a mënu ci sikk dara kuy as gor mbaa nga ab jullit mbaa bëgg sa réew bëgg sa kon ñu ngi leen di ñaanal man mii nag dañ maa toñ ba toñ bi yoon ci lépp koo dem ñu ma ca kon goo xam ne yàgg na te it man wóor na ma ne ku ma yowoon ci sa un milliard ci àll man dongo un milliard de dollars du ma ci laal suuf si boo ma ci joxe dara bëgguma ko. macha allah saw ñaq rek laa bëgg. kon lii nga xam ne ñoom yëkk nañ ko. lii ñu wax man ñaar fukki at ak ñaar wax naa ko ci rajo yi. wax naa ko ci rajo yi na Sénégal ak na foo xamante ne kat. seet nañ koo seet ndax mun amuñu suuf. kon nag bàyyi suuf ku mun caxat caxatee ko étranger yëpp ñëw ku neex nga jël. loolu la war nañoo seex mu dëkk. suuf si bu ko kenn jaay nañ ko luyee. moom bàyyi moom lu yàgg-yàgg téeméeri at yàgg-yàgg yow moomoo ko waaye titre foncier yor ko sa poche moom moom a réew mhm. kon nag sama suuf si ñoom dañ maa waxoon loo xam ne bi ñu waxee dara du ci dëgg mbir mi nan la nan la demee ndax ndax mbuur mi am na fanweeri at ba man ko moom mën naan rek ca cosaan ba léegi rek 1993 mhm. waaw ëpp na suuf loolu mhm. kon ñoom ñu ne ma suñu titre foncier la dama koo jënd kenn mayuma ko kenn saraxuma ko léegi nag yow sama baay sama mag nga sama papa menn at la la magee maa la jox lii ñaar fukki million ak juróom kon nag loolu xam nga ni ci fukki ak yu top ak genn wàll du du yoon. Hmm. kon loolu loolu bi ñu ko waxee sama njaboot bañ nañu bañ gi ñu bañ ànd naa ci. nga ci. Hmm. ànd naa hmm. ndax xam naa ne du dëgg ndax li mu waxoon lépp du dëgg. du dëgg dañu moo ko moom. titre foncier la. fay naa ko kenn jaayu ma kenn sa roxu ma du état maa ko jënd. loola may man nag bëgguma dara kenn. lu ma moom ci dara ginnaaw titre foncier la moo ko moom nañ ko bàyyeeg borom sax waxoon naa ko waaye bi ma si yëggee lépp du ay nax ak dara ci dëgg ko xale yi gembu nag taxaw ànd na ma ak ñoom ci loolu hmm. loolu daal laa yëgal Sénégal gépp hmm. dina wax ne képp koo xam ne su dëgg nga koo xam ne su yoon nga maa ngi lay woo ci mbir hmm. loo ci man ak mboolem ña fa nekk ak lu mel noonu ci Sénégal gépp dakk ci Sénégal ak sax ci adduna bi loolu ginnaaw bu ma sama xale yi doomu aar gi ak njaboot gi yëpp nag waaw loolu daal maa ngi leen ko jigal Sénégal gi Ousmane Diagne maa ngi yor Ousmane Diagne mi nga mm. xam ne ñoo yor am justice mm, ak ak yoon mu taxaw ci tëpp mm-hmm. taxaw ci temm mm-hmm. ak itam ñi nga xam ne ñooy kilifa yi nga xam ne mm-hmm. ku mel ne président ak premier ministre président Ousmane Sonko président Diomaye waaw hmm. ñu jàpp ci bu baax a baax a baax nañ ci bu baax a baax a baax maa ngi leen di ñaanal hmm. ñaan goo xam ne guddi ak bëccëg hmm. waxtu wu nekk li ma yéene sama bopp yéene ko sama njaboot yéene naa leen ko te ñoom bëgg naa ñoom seen bëkk ni gudd fan lool ak wér lool ak jàmm salaam yàlla ko yàlla defal ak ah, ba ñu ñu bëgg ci yéen mi ci réew mi yàlla defal leen ko wasalaamaaleykum kooku mën na ñoo yem foofu rek en attendant ah, waaw mais dafa am lu ma xaw a metti ah. damaa gis euh, réew boo demee ay Allemagne ak fu ne dañoo fonk garab yow sa tool tool bi am lépp lu nit di soxla ah. muy mango di darkase di lu ne mu am fa ah. mu ñëw fekk image yaa ngi nii ñu daane lépp ah. mu ñaaw ñu ne lii ñu daane sax ñu ne lii ñu jot a joxe ci 7 millions yi suuf si tax koo jóg mais garab yee ko tax a jóg tooñ est-ce que duna nit ki boo demee ba fekk ay garabam nga nanga koo jox xaalis ngir garab yi kon xam ne moom moom fa garab yi nekk la genn màng goo xam ne at mu jot mm-hmm. ay weer mba liggéey ci lépp cinq cent mille six cent mille tool bi si boo bëggee par semaine mën naa ci am un million wala cinq cent mille. Hmm. waaw garab garab goo bëgg ma nga fa. garabu cosaan yi am kajoor yëpp am na fa. nga xam ne ñu xaw xëy xëy daane ko daaneel. mu du simonte kon ak tabax ya lépp ñu daaneel ko. ak lima lépp lépp waaw. na na suñ titre léegi man na xam naa nangu naa loolu. Hmm. ndax nee na sama titre foncier la. waaw kenn mayuma kenn saraxuma. Hmm. kon nag bu ma leen neen jëmal du ma la jox dara it yàgg-yàgg da ngay dem mm. ma xam loolu ndax dëgg la ma loolu bu fekkee dëgg la dëgg la mm. léegi nag dara lu ca dëgg ndeke dara lu ca dëgg ndeke deux mille vingt trois bi sax la doog a am mm. kayit woo xamante mën na koo wane mën na koo wane waaw ndax foofu euh, domaine national la tey maam ba yam tey suñu ki ko ki ma kii xam naa ko bu baax a baax ñoo bokk lépp ci ñàgg ba tey jii am na koo xam ne tey moom ñu nangoo toolam la kiris dafa kiris AOC ba fii mu ne mi ngi tëdd waaw bi ñu jëlee bu fekk tool bi de daanaka bi daam daam ñang mu ma séqal moom dafa daal di kiris daanu waaw man nag waa kër gi léegi nee na at nañ si jaay suñu bakkan ak ñu si man ñëpp ndax ñu kenn taaxal na ko nangu sama njaboot yëpp bañ nañu hmm? dañu yàgg a tooñ ak 36 uh, hectares ah. ah yu buntu Pikine plan jaxaay fu yow daal ah, yàgg nañ maa sonal yàgg nañ maa plan jaxaay hmm. maa ko toj yëpp kon weeri hectare nangam ñu xëy ko jël joxuñu ma fa loolu benn benn benn benn giir lépp ma ma bàyyi naa loo xam ne état bi la ak adduna bi sax bëgg naa ko waaye loo xam ne kenn nit la koo xam ne day wax rek hmm. bëgg nangu sa yëf ca lool wet gu ne loolu am naa ko fa hmm. lool maa ngi ko yëgal senegal gépp hmm. di ñaan yàlla képp koo xam ne nitu dëgg nga nitu at yoon nga loo ci xam nga jàppale ma ci ba sama ndam di ma am ko ci sama suy xaaral ma jox numéro bi président Ousmane Sonko ngir yàlla wooteel ci numéro bii président Ousmane Sonko euh, woote 76 683 94 01 di nga jot doomam di am sa Diop. 76 683 94 01 am na WhatsApp di nga jot am sa Diop mu wax la nu mu demee beneen bi 77 643 03 03 di nga jot Thierno Diop muy doomam euh, loo ci bëgg ñu rek ñu leeral la ko ndax lan la góor la goo xam ne que lee mu am téeméeri at ci saayir yàlla ko yàlla dool gudd fan ji yor alalam. ay ñii ñuy wax seen ganja seen seen seen ginja ñëw ak SN HLM bëgg a teg suuf ci ay hectares am lu war a ma dix hectares yu topp tuuti hmm. valeur ay milliards hmm. ñu bëgg koo jël nii mu yomb day yomb loolu moom duñ ko ah, bàyyi noonu loolu moom dëgg xale yi bañ nañu ànd naa ci ak ñoom hmm. moom loolu dëgg la moom ndax tooñ sax dafa baaxut kooku mhm. tooñ du dëgg du dëgg mhm. te moom dañoo waxut lu xam ne dara du ca dëgg mhm. maaka moom titre foncier la kenn ma yuuma kenn soroxuma maa jënd ah bu ma taxawee ne la génnal te da nga génn yàgg yàgg lii lañ wax maa la may lii ndax sama baay nga sama baay trente cinq la yow trente nga li waaw waaw ma metti mooy dégg naa dañoo jël bisub lëm di la wërloo Ndakaaru rek wër loolu ba nga sonn ñu ah, loolu waaw maam maam xam nga lii si tooñ gi daal dafa ëpp rek far tooñ gi ëpp na mm. ak sonal gi ëpp na lool mm. loolu nag laa bëgg état beeg Bachir ak ñoom ñëpp. Mm. ak Sonko ak waa réew mi yëpp ku àtte dëgg. Mm. di ko tàmbali ci xalifa général de Mouride. xalifa général de Tidiane ak képp koo xam ne nekk nga ci réew mi. Mm. dégg wax ji loo ci man ci nga jàppale ma ci. nga jàppale ma ci waaw wasalaamaaleykum. waaw El la kon dégg ngeen li ñu ko def. mu ngi woo ñëpp président Diomaye président Ousmane Sonko. ngeen jàppale ko bu baax a baax ci suufam si lii nag du ndaw valeur ay milliards la. ay milliards. waaw buntu Pikine nag yëpp ñu teg ko dil nii ba ko te li tax man may wax nii bu ngeen gaawul ñu ngi nii di gas léegi ñu agsi ci mu jeex benn daaneel leen garab yi loolu moo tax fi pour wane ne dimbal tamit lu jot la du amatul xaar de nañ ko def léegi dëgg la arrêté foofu yëpp kay waaw kon nag loolu la Sénégal gépp laa didki pr tàmbale président ak premier ministre ak waa Sénégal gépp ñu def ko yitte ah mo sëñ Mountakha maa ko ci ñaan dimbal mu dégg ko xalifa mm-hmm. général Tidiane mm-hmm. sëñ Babacar Sy maa ngi ko ci ñaan mu dugal ci loxo mm-hmm. waaw ak Sénégal gépp ak nga xam ne dëgg rek la ñuy àtte mm-hmm. waaw parce que dégg naa ku ñuy wax Souleymane Ndoye mbir yi ak préfet bi préfet bi ab ab ab na Descos mm-hmm. waaw préfet bi ak nan euh, Abdou Khadir Diop la defe naa de préfet Abdou Khadir Diop ak Souleymane Ndoye ak Sénégindia ah Sénégindia waaw ñoom nag lépp nag ci doole leen ko teg moo tax ku jëndati terrain wala kër di ko jënd seen ginjaa fi mu nekk nii moytul ndax euh, xaalisu paa bi alalam lañ teg gi ak ñeneen te foofu suuf nag coow loolu baaxul ci leen te na ñoo xam ne que nag dañ lay teg dil ba pare dem rey fay nag def fa lu ne pour xërëm la waaw. Ah, lu def nañ ko ah, fa fa rey lu nekk def nañ ko nag yu ñuul lu def nañ ko fa. nag ñuul kukk. ñëpp def nañ ko fa waaye ma bàyyi xam ne yàlla rek moom am solo. Mm-hmm. yàlla fi nekk. Mm-hmm. kon dégg ngeen ko dañ lay tooñ ëpp la relation ëpp la sëriñ ëpp la jot. gën la jubati. léegi boo ne ah. te it moom yoon dafa nekk nag. Hmm, nekkal fi ñëpp. yoon dafay nekkal ñëpp nag. Hmm. te moom dem nañ ci yoon ba yoon jox ma dëgg fépp. Hmm. fii itam moom la mu wax dara du ci dëgg. dara dara du ci dëgg nag dara. sama Twitter français rek kenn mooy ma kenn sa roxo ma. bu ma taxawee ne la génnal il faut da ngay génn rek jël. du la jox benn dara maa la may liggéey. loolu moom moo ko wax. yàqal naa sama kii nag sama liggéey yëpp. ak sama tool bi fa nekk. ak liggéey ba mu fi def yëpp yàq na ko. ak biir gi ak biir yëpp. waaw la ñu doon liggéey par jour par journée juróom-ñett nit ñoo doon liggéey par jour. waaw léegi ay weer ngi liggéey ñu defuñu dara. juróom-benn weer juróom-ñaari weer. Mm. waaw defuñu dara dañoo toog daane garab yi daane magasin bi daane lépp mm. waaw. place ndox mi sëkk waaw ah, place ndox waaw ndox mi sakk nañ ko. Ah, c'est ça doy na lii daal métti na kon kon président Diomaye fay léegi kon euh, gis ngeen daal lii moo fi am ma sàmba Diop doon koo xam ne que euh, moom lebul état lebul banque ñaanul yolwaanul li mu bëgg mooy dëggam ñu tegaat ko ci loxoom ku ci man dara nga jàpp ci président Ousmane Sonko euh, Cheikh Bara Ndiaye ngir yàlla yaa ngi seetaan Tektal TV président Ousmane Sonko lii ñor na ma lool mu gaa wax ci président Diomaye lii ñor na ma lool mu gaa wax ci Ousmane Diagne euh, sa xarit la mu ñor na ma lool mu gaaw wax ci ngir lii du lu ndaw te ñii dañuy gas te nar àgg fan jëm waa travaux yaa ngi nii daanaka agsi nan am na ñun nangu seeni tool ñeneen ñi ngi di ñun nag comme fii mooy jooytukaat bu mag bu mag bi ñu jooyee fii wax fi lépp ngir comme président bi la la am fële ca Thiès dan ko arrêté ci saasi mu taxaw lii nii tamit jar na président jàpp dimanche léegi ñu dem gisi ko ndax bu buñ ko gisul gars yi nee na dinañ fa dajalawaat ñi nekk bitim réew ak yëpp njaboot gi ñëw duñ tal lenn lu dul jotaat seen alal daal waaw daay guy tàkk la te fay koo gën daal te tooñkat bi ñun waxuñu kenn jàppale far farale ñu ci tooñ mais na jot suñ dëgg rek waaw loolu daal te magum jëm wax dëgg yàlla boo xam ne que heure bu nee mi ngi jaamu yàlla eh, tal liggéey eh, ba muy liggéey daanaka Dakar eh, géey na góor góorgóorlu ba heure bi ñoo xam ne que biñ juddoo yàggul bëgg a ñëw ëpp ko kii te dëkkuñ ci réew mi teg ci ay indien lan xom ñëw bëgg ànd ak SN HLM ak préfet beeg yenn kii yi nga xam ne que dañ leen koromp ñu def yenn yi yenn yi ñaaw na te lenn xam naa ko nag nitu alxuraan ku dugg ci mbiram du fay de mais yàllaa koy fayul ku ko defal lu baax du la fay de mais yàllaa lay fay kon ku ko def lu bon noonu lay demee kon ngeen bàyyi xel lool bu baax a baax a baax téere yi nag mi ngi bambiloor pour ku bëgg coowal bambiloor li ni coow alaaji Masamba Diop mu ciment moo nekk nii mooy borom mu doon valeur ay milliards ay milliards ñu bëgg a jël ay quelque millions teg ko neen laalu ñu seen xaalis teg nañ ko foofu ñoo dem leen jël seen xaalis ak seeni i te indi ñu sunu teere ci jàmm ak salaam jàmm lañ bëgg ah. dëgg la dëgg la waaw dëgg la wax loolu rek mooy dëgg. mooy dëgg kon dëgg moom ngeen rek la yor guddal. waaw gudd fan. Mhm. yéen xale yi. ci ñaanal te nguur gi bees gii yi nga xam ne moo fi nekk. Mhm. président Diomaye Faye. Mhm. ak président. Ousmane Sonko Ousmane Sonko. yàlla guddal seen fan yi seen mébét ñu ñu mébal nga xam ne képp ku as gor képp ku as julit képp ku liggéeykat képp nit ku baax war nga ànd ak ñoom te ànd ak ñoom ku di ànd ak rek loo bëgg am na nag boo dégg seen wax seytaane la alxuraan nag na seytaan seytaanu insi a garaaw iblis seytaanu insi nit seytaane amee mm. nit ñi amee seytaane ñi bëgg a yàq jomaay ak bés ak Bassirou kii Bassirou Kounta. Ousmane Sonko eh, hmm. ñooñu ay seytaane lañu. jaxasekat yi hmm, ay jaxasekat lañu. mais duñ ci am ndam de. duñ benn ba duñ ci am ndam. Hmm. ñoom ñëpp taxaw xam ne tey adduna gi ci biiram bu soxoon mënut a yàq seen diggante. Ousmane Sonko Sonko. ak Bassirou dara mënut a yàq seen diggante. ku ci waxee seytaane nga. iblis nga musibam naarulaahi nga. te it la. seytaane seytaane si dafa am su mel ne iblis waaye sayaatul insi dafa am nit ñi ni la seytaane amee ni nit ñi amee seytaane ñooñu nag ñu ngi yàq bu kenn mën a yàq seen diggante kenn mënu ko sax waaw ku ci wax rek dara da ko gën a dëgër waaye du mën a yàqu Mm-hmm. Ousmane Sonko mm-hmm. ak Diomaye seen diggante wax ci dem ci wax sax ak defar la mm-hmm. jëm ko yàq ak defar la ak defar la ak defar la ñi doon yàq waaw ñi yàq ba yàqule ñoo leen bëgg a yàq mais du yàqu kon ñi doon yàq ah. ba yàqule ñoo bëgg a yàq diggante Ousmane Sonko ak Diomaye wóor na ñoom yàq ko moom kenn mënu su leen yàq seen diggante kenn mënu ko ku bëgg a bëgg a yàq googu ngoo ko ak defar la ndax dañ jox gën a jox jom gën a jox feddali waaye kenn mësu yàq seen diggante kooku na ko Sénégal gépp xam kenn ku jógit am paxam saytaaneen say xam nga ne da nga doon lekk rek di yàq am réew am nit bëgg lekk ay milliards kenn nit eh, trente milliards vingt neuf milliards quarante milliards cinquante milliards soixante quatorze milliards quatre vingt mille milliards. six mille milliards. boo ko séddalee téeméeri at. at na juróom-benn fukki milliards la. ba muy téeméeri at. Mhm. kenn nit jaay suuf jaay géej gi jaay lépp. Mhm. réew mi loolu kenn waru ko woon a xalaat nag doomu aadama war na koo xalaat sax. Mhm. am nit ñuy dee fii amuñu lu ñuy lekk amuñu lu ñuy naan amuñu fuñ jaar amuñu fuñ fajoor kon senegal foofu la toll tey moo gën a tardé ci réew yi te Sénégal gën a avancé ci réew yi. gën si ab dëkk gën si suuf. gën si adduna mm. mm. kon loolu Jonko Sonko mm. ak Basiiru yal na yàlla guddal seen fan fan fan yal yàlla yàggal seen taxawaay mm-hmm. seen lii ñu xalaat yal na ko yàlla gën a dëgëral yal na ko yàlla àggale waaw te xanaa booy gis eh, eh, njiit yoo xam ne que bu ñu demee ci kaamil ku leen jox ñu bokk ci bu ñu julli ku leen jox ñu dem ci kanam loolu moom bu ñu demee ba jiitu ñu xel day dal defe naa bu soobee yàlla ma ne ñoom boo déggee eh, ba jumaa yi déglu Basiir xam ne bari na kilifa ak fi nekk mm-hmm. ndax ñoom dañoo denc dañu réer xam li alxuraan wax xam li lislaam wax xam li adduna bi fi adduna bi toll. ndax kenn mu leen a dolli am xel daanaka. kenn mu leen dolli xalaat dañu xalaat. xalaat na bu baax bu bu rafet ba doon leen ci jafe na. xanaa ñaanal leen rek. li ñu bëgg. bëgg-bëgg la xam ne xanaa ñaanal leen rek waaye kenn mënut ta bëgg ko raw. Mm-hmm. ci bu waxee itam li ñuy wax alxuraan li dëppool ak njëriñu doomu aadama rek. du seen njëriñ waaye kii ne man sama bopp waxuma ko hmm. sama bopp mu li nga def mën naa ko baal waaye lii nag réew mi nag mënuma ko baale hmm. moom ma ko hmm. wax dëgg wax na dëgg de ah rey nit ñi juróom-ñett téeméer nit juróom-ñett fukki nit du caaxaan tëj ñu def ak gërëm nga soj def ko lu ne kooku du yoon woowu ndëngite ku ko def ñu bàyyi la kooku moomu réew ay ndof lañu kon ngeen xam ne Bachir ak gouvernement bii gouvernement la boo xam ne mat nañoo topp mat nañoo déglu mat nañoo xool. Mm-hmm. te ñaanal leen sa jàppale leen. ñaan leen ñu def ñoom daal ñoom daal bu ñu fi nekkoon ba léegi daal réew mi dana baax. Mm-hmm. njub dana am kon réew mi dana weesu fi du wéy. Mm-hmm. kon tey mooy raw ci adduna bi. ndax Sénégal alal ju xeetu ndimbal bu nekk am na fi. alal ju nekk am na fi suuf yeeg garab yeeg lépp xéewal la. waaw senegal xéewal la. kon nag na ko senegal xam xewloo ko waaye bàyyi adduna bépp njàmbur yi na koo xewloo ndax six mille euh, kii kii. milliar yoo xam ne ci dollar ci ci ci or par at. Mm. six boobu kenn xamul nu mu toll. Mm-hmm. mi ngi jóge Sabodala. Mm. koo ko wax koo ko mos a dégg wax déedéet. par at. Mm-hmm. fii mu ne tey réew mi pax rek moo xam ne dara nekku fi. kon loolu na ko Sénégal gépp xam. waaw Sénégal daal nañ xam loolu. Mhm. kon na ñu ngi sant nag itam. jum mhm. président Bassirou. Diomaye Diakhar Faye. Mhm. ak Diomaye. président Ousmane Sonko Ousmane Sonko. am na koo xam ne nañ ko ciy teg bu baax a baax. Mamadou Fofana. Mamadou Fofana ndaxte moom day fexe ba buy wax olof yi xam li muy wax. waaye ñi nga xam ne Bassirou ak ak ak bu ñu waxee rek ñoom lépp ñëpp xam ko. wax olof bu leer nañuy wax waaye di wax olof wax ba àggal te benn baat olof nekku ci li ngay wax kan li wax benn olof xamul li ngay wax mm-hmm. loolu réew war suñ ko nangoo mm-hmm. ku mënta wax wax bu leer waroo jéem a wax nga noppi mm-hmm. kenn ku ne olof nga jëkk a déglu ba mat du am jóge fukkeet doo ko dégg français wala dégg doo ko ay kon nag ñoonu loolu war na taa def ci réew mi ñàkk fayda ñàkk fulla ñàkk sama fayda ba nangu wula wax te langue bi nga jàng sax nangu ko wax kenn mënut a xam li ngay wax kooku ñu ngi sant président Diomaye ak président Ousmane Sonko hmm. ak Mamadou Fofana waaw bu waxee rek moom nga doon koy xam waaw wax bi day leer wax day leer hmm. waaw te it loolu xanaa ak ñàkk kay la waaye kuy wax anglais hmm. ñun benn baatu olof doo ko ci dugal ñuy wax français duñu wax benn olof duñ ci dugal ñuy wax ñeneen waaye booy wax olof doo wax waxa waxa bàggal doo wax benn baat olof. bala ngaa dégg nga baal ma damaa des a dégg wolof. damaa dégg wolof ci dégg wolof juróom-ñaari at juróom-ñetti hmm. door a dégg France li ngay wax la perte sa temps complexe la loolu nañ fexe ba jóg ci réew mi nag. Hmm. waaw ba réew mi quatre-vingt-dix-huit xamuñ ci li ñuy ak li def. Hmm. waaw ndax quatre-vingt-dix-huit dégguñu français. dégguñu arabe. kii ca di waxtu wu ne ñu ngi wax waaye xamuñ ci dara. ndax kiy wax du wax olof moo tax mm. waaw loolu nag maa ngi koy dénk waa Sénégal gépp ñu bàyyi ci bàyyi ko xel mm. sant sa président Sonko bu baax a baax wax bu leer leer mm. ak président Diomaye mm-hmm. waaw ak Doudou kii Mahamad Mamadou kii Fofana waaw moom journaliste bu wax wax bu leer leer lay wax mm-hmm. waaw wasalaamaaleykum mm-hmm. wa rahmatulahi taala wa barakaatu kon daal ngeen bàyyi xel lu lii mu wax nii ci président Ousmane Sonko lu baax la Ousmane Sonko moom nee naa leen ku ko bëgg te yëgoo ko ku ko bëgg nga yëg ko nga ñàkk ko yëg yaa ngi yokk ci lu baax te yëgoo ko ku ko bañ nga yëg ko nga ñàkk ko yaa ngi yàññee ci lu baax ko kon ngeen bëgg ko ndax bëgg ko mooy bëgg lu baax kon euh, président Ousmane Sonko président Diomaye yàlla leen yàlla defal jàmm bu baax a baax a baax a baax euh, mais jàmm jooju ñi leen di ñaanal tamit ngeen bañ ñoo fàtte ci lii ndax ñii ngi toj wut si accident ba léegi de li leen dese matatul dara accident ci digg wi pour euh, nangu alalu ma Masamba Diop waaw waa Séné Gandia Séné Séné Gandia moo ko nar a Séné moo ko nar a def waa ak SN HLM ñii danoo jël ñaar yi ñee bëgg jël huit yi ay hectares la ay milliards lii bu buñ ci taxawul rek du baax kon président Sonko numéro yaa ngi noonu ci écran bi nga woote ji di nga jot Thierno Diop ak Amsa Diop euh, ñu wax la nu mu demee ak fan la nekk ci Bambilor coowal milliards yi nga xam ne ko ba mu koy am boobu président Diomaye juróom-ñeenti at nga am xam nga fukki at ñaar nga war am euh, kon. mu yor terrain ba heure bi nit buggi ci teg loxo ci lu dul yoon. wax loo xam dara lu ci dëgg nag. waaw wax loo xam dara lu ci dëgg. ndax mm. dañuy sama titre foncier la mm. maa ko moom. kenn moyu ma kenn saruxu ma. loolu nag dara lu ci dëgg. kon loolu wax lu dëgg la. Mm. waaw wor la sàcc la. kon ñu ngi demaat tool ba sax waxi ñoom am sa ñu xool ni koy defee yëpp ak ñoom Thierno Diop ak Mouhamed bu mag ak Abdou Khadir ñu demaat tool ba ñëwaat. jërëjëf jërëjëf euh, El Hadj Massamba kon li nga ko waxee nii noonu la ko ñii nekk fii ñu bari noonu lañ ko seedee gis ne lii ngay wax moom wax dëgg yàlla euh, dañ laa tooñ jaay nañ la doole teg nañ la loo xam ne que ëpp na ba jël te euh, xaalis yi nga xam ne que lii nit ki kay dafay mel ne kuy naxub xale rek lii dafa mel ne téeméeri junni nga génn ci ñaar dërëm ah lii du prix lii du jaay lii noggutu la mais li ma wax autorité yi lii nii bu xaar muy ñaari fan a ñett. parce que ñee ngi nee di gas lee ñu agsi fii ñu agsi rek li ko ah gas nañ fii agsi nañ ngir yàlla loo waaw waaw mbay mbay nga ne noonu la demee mbay. jël nañ huit hectares actuellement. ñoom daal ñu ngi terrassé. commencé jaay nag ñoom. commencé nañ ñu gaaw parce que ñoom commencé nañ jaay ay clients. chaque dimanche nit ñaa fi ñëw di jënd. te ñoom terrain cent cinquante mètres bu gën yomb huit millions la. Mhm. jàpp sept jàpp douze millions. ñoom la loolu la ñuy jaayee ñoom. loolu la ñuy jaayee liñ terrassé. ñoom mm. loolu lañ koy loolu lañ koy jaayee. toolu gis nga ñaari miir yi xaj xajal koo yële. waaw waaw ñaari miir yi moo dem. moo dem ba ci ginnaaw plan bële ci ginnaaw. gisoo plan mm. plan rek bi. waaw ci ginnaaw da ngay dawaat foofu lu mat ay trois cent mètres. huit hectares la si jël jël na si huit hectares. huit hectares. Mhm. huit la. léegi ñoom huit lañ jël ñoom. huit ab ah, mën nañu dix yëpp sax parce que nee nañ deux lañ ko jox aslem leen ko wax président Diomaye fi nekk ak président Sonko dëkk yoon lan duñ seetaan leen li waaw ñoom nee na deux yi jox huit yi seen India dama xamul nag léegi président moom ak Ousmane Sonko premier ministre ban décision la ciy jël. Mm-hmm. jar nañu suspendre ko def enquête ba xam. Mm-hmm. parce que fii moon nekkoon tuuti foncé Bertrand. Mm-hmm. français bi ñuy wax général Bertrand. waaw léegi nag au temps Ablaye Wade famille daf fi ñëwoon. ba dem ci Ablaye Wade Ablaye jënd ko si ñoom. Wade nag si la ko dugalaatoon domaine national. bi mu ko dugal domaine famille Bassirou Diagne dem fa ne ko ñun dañ ci bëgg wàdd si leen si may cinquante hectares. kon daal mën a déggee ku jëndee terre ci Sénégindia yaa ngi ci risque ba léegi. Ah, fii Bambilor parce que fii moom leeragul. Mhm. waaw kon Sénégindia ngeen yéen ñiy jënd ngeen bàyyi xel ne am na jafe euh, ndax lan kii di suñu papa di El Hadj Massamba Diop euh, terre yi mi ngi ko am 1993 31 ans lépp fanweeri at. nit ki yor alalam nga ñëw ba heure bi ay 2024 nga bëgg koo dëbb linjaa loolu président Ousmane Sonko du ko seetaan président Diomaye fay du ko seetaan réew mi yoon moo fiy dox affaire yi nag du daray politique dëgg la mu njabootam ak ñëpp teew ñi ne danañ ci wax ni ko xamee bu baax a baax a baax a baax a baax ngeen ba ki li ñëpp moom ñëpp jot ci waaw ngeen bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax incha mbay dafa am a wax nga de. léegi jël ba mu dugal dossier bi. waaw nee na moom bi mu xoolee dossier bi. Mm-hmm. fii fii nekkagul TF moom ba léegi domaine national la gis. Mm-hmm. léegi moom demoon na tribunal ba ñu ko ba renvoyé ko. Mm-hmm. waaw léegi ñu ci tribunal mais nag tribunal xaw a yéex quoi ko renvoyé parce que avocat bi mu na moom ba léegi. fii mi ngi national. xam dañ def na ko TF moom nee ba léegi fii mi ngi national. léegi avocat bi moom mi ci tribunal mais loolu dafa xaw a yéex quoi sotteegul. non président Diomaye dina ci taxaw incha allah waaw incha allah ci taxaw incha allah. incha allah hmm. Abdou Khadre Diop lii da nga ciy yëkkati kàddu lii du yoon. ah, ah jaay doole gi am ci dëkk bi. waaw lii moom du yoon moom. ndax hmm. suñu papa di El Hadj Massamba Diop lañ fi fekk. Hmm. waa sene Sénégindia ak waa euh, Sen HLM. bëgg a jël suñuy terrain ak préfet bi ak bëgg a jël suñuy terrain yoo xam ni toll na ci diis hectares. waaw léegi ñu bëgg ñu jaay doole bëgg ko mm. jël te jomaay président Diomaye ak Sonko ba ñëwee ba léegi nee nañ fii jub jubal ak ti moo fi nekk mm. waaw loolu moom duñ ko seetaan mu fi am ñu teg paa bi coono ñu teg paa bi coono bëgg ko signaloo ci force pour mu signé ko ñu jël terrain yi koo xam ne daanaka am na lu jege téeméeri at liggéey ak jaamu yàlla Sénégindia nag ak seen HLM képp ku fay jënd terrain bu yaboo nga def attention ci jamono yi ñu toll ba suuf si am lu leer nañ dégg ngeen ko kon kon fii ci Bambilor Sénégindia ngeen euh, bàyyi xel moom moo am jafe-jafe ak kii di ma sàmba Diop ciment ca Derklé euh, villa numéro 60 koo xam ne que addunaam yëpp def koo liggéey jaamu yàlla wéy ci ndigal bu baax a baax euh, ñu ñëw ci góor gi tribunal la Gora Fall Gora Fall kaay mën nga noo expliquer jafe-jafe bi. waaw nan lan la demee. ah am na lu ma ci xam de wax dëgg yàlla ndax man fi laa juddoo fi laa yaroo. fi nga juddoo fi nga yaroo. waaw suuf si bi mu koy jël. waaw suuf suuf si biñ bi ko bi ko góor gi am. laaj ma Samba Diop booba xale bu ndaw la xale bu ndaw nga booba mm-hmm. xale bu ndaw laa te fi mu nekk nii sama sët a ngi taxawaalu. tool bi yëpp ay garab la woon. Mm-hmm. ñoo fi jox ñun ñoo ko daan béyal fii gerte. Mm-hmm. liñ fi jël liñ dañuy wax ay dix hectares mais xawoon ëpp na ko sax. ëpp na ko ëpp na ko. lii mooy lu leer nañ lu mel lu kenn mënul dindi rek. man fii laa juddoo fii laa yoroo. Mm-hmm. ba tol ni ma tol. Mm-hmm. xaw ma dul àll. waaw xaw ma dul mbéy. Mm-hmm. mais suñu àll bi yëpp jël nañ ko. jël nañ ko rawatina sañ ginnaaw mii. xaw ma xaw ma ay man seen kenn mën la dem seen dëkk am fa ab ab ab mètre. mètre mënoo ko fa am. ñu ñëw nag bëgg jël suñu àll bi yëpp góor gi góor gi góor góor gi mag la. ay ay ay doomam a ngi fi. ñu fexe ka bunu xataal bunu xataal bunu xataal bunu xataal ba nga xam ne si mm-hmm. daal moom xamatul nu muy def mm-hmm. ñu daal di koy jël yóbbu ko te kooku ku nekkoon safooru sëñ Fàllu mm-hmm. safooru sëñ Fàllu la woon xam comme li leen leen wax léegi comme xamudul alxuraan ak jàng saa yu ñëwee fii bu daan ñëw fii café la ñu indi café ak biscuit mm. ku di xel dañu jox rek di xel dañu jox mm. ñu toog fii waaw moom wax dëgg yàlla ñu sonal ko sonal ko sonal ko sonal ko ba mu dem dem jël jël fexe ba jël nangu suufam alam bi yëpp nangu nañ ko ñaa boo boo dee xool li ñu fi bàyyi la li ñu fi bàyyi akas néew ñaari hectare te sax bàyyeeguñ ko sax mm-hmm. ko sax ñu ngi waaw kon ba ngir yàlla ak yonente bi jomaay ak ak ak waaw président jomaay ak ak ak président Sonko jàppale leen ñu ngir yàlla jàppale leen ni ngir yàlla dañ leen a jàppale woon ngir yaakaar leen mm. suñu yaakaar yàlla ba mu tas ci yéen mm. wax leen ci yéen suñu lii ñun ndax amul xamuñu du dul suuf mm. xamuñu du dul mbay rawatina góor gi góor gi kat ba mu ba mu dalee bay boobu ñun judduwuñu waaw ñun boobu judduwuñu kon jàpp leen ci wax leen ci def leen ci ñu ngi leen koy ñaan waaw ngir yàlla ak yonente bi man góor a faal la tudd di bàyyi faal xaw ma du lu mbay te góor gi moo ñu yar moo ñu yar jërëjëf jërëjëf Gora Fall euh, balaa ñu lay bàyyi euh, li ñu bëggoon a xam ci mbir yi ndax yow bi ñu tàmbali fii nga gis ko première nga gis ne lu bokkul ci gox bi ñëw na fi nan nga ko jàngatee lu boobu. waaw li ndax li li li bokkul ci gox bi ñëw na fi ni ma ko jàngatee moo di ni ñoom daal. ni ma ko mën a xam ay poli yëpp police yëpp dañu doon sax na lu tuddati euh, ñi ñi garé garab yi eaux forêt sax. ñëw na eaux forêt sax ñëw na dañ ci daan dëkk di ñëw di ñu bund xataal ma ne ki nekk ci a benn jar doomam a ngi fi. Hmm. ñu koy wax maam Cheikh. waaw. Hmm. ñu ñëw di ko di bunda ba xataal lu nekk dafa dëgg ak ñoom mm. ñuy bëtt ci àll bi à la fin xam nga lu doon natte fii ay drone drone drone ay drone lan drone mujj nangatuñ fee dugg ay drone lañ doon doon nat mujj di mm. ba mu doon dem dem dem dem dem ba nga xam si ne xam na ne fi mu nekk ni kii nañ léegi nag ñu song paa bi nag ñu song paa bi ñu song paa bi song paa bi xamatul lu muy def mm. ñu nax ko yóbbu ko ah daal di koy signaloo ah, ah daal di koy signaloo daal koy signalé mais président Diomaye du ko kii du ko bàyyi. ah yaakaar naa ko defe naa kon daal gis ngeen ngi mbir bi nii ngeen euh, xool ci Tektal TV bu baax a baax a baax. kon mbokk yi gis ngeen ko lii xew fii ci Bambilor kii di El ma sàmba Diop di góor goo xam ne que day jaamu yàlla di liggéey ngiru dundam ba am lu jege téeméeri at nga xam ne que njabootam la tal ak liggéey ak jaamu yàlla wéy ci ndigal liggéey ba heure bii nag ay ñu kenn xamul fu ñu bëgg a jóge bëgg ñëw teg ci alalam loxo loolu nag ñoom nee na duñ ko nangu tey. duñ nangu ëllëg kii di wax ci seen kàddu di doomam di am sa jóob njaboot gi yëpp a nga fi teg ak ñi nga xam ne que teewuñu waa tundu yëpp nii te lii luñ waajalun la mais yi ci kanam dina gën a garaaw ndax président Diomaye lan bëgg mu yëg li xew ak président Ousmane Sonko ndax ñoom ñoo doon njiit réew yi nga xam ne que dañuy nekkal dëgg li ñëpp moom ñëpp jot ci euh, yoon am fi ak dëgg am fi kon jaay doole daf fiy jeex euh, sëñ am sa jóob lan nga nu mën a wax defe naa lii nga wax mbokku lii rek ku ànd ak xel rek dina mën a xam ne lii moom du yoon Bon, nous, la famille de Elage Massamba Diop, on a été victime d'une spoliation. Bon, ce champ, on l'occupe depuis 1993. Mais un beau jour, des gars sont venus embarquer le vieux pour lui faire signer une conciliation par le du, par l'intermédiaire du, du, préfet Abdou Khadr Diop. Bon, cet acte de, de signature a été fait, bon, on peut le considérer comme sur la torture, une torture morale. Parce que le vieux, l'a, il, a, il a quitté le vieux vers les coups de 10 h du matin. Il est rentré jusqu'à 21 euh, h Bon. De ce fait, la famille n'est nullement d'accord sur, sur, sur, la procédure enclenchée par les, par, par, par les autorités. Bon, de ce fait, nous, nous interpellons le président le président de la République les membres du gouvernement pour qu'ils avant qu'il ne soit trop tard. Parce que nous n'allons pas accepter cette procédure. Vraiment. On nous a délesté d'un bien. Mmh. Étant que ce, ce champ, on depuis 1993, mmh. bon, étant détenteur d'un acte administratif, mmh. nous, nous, ne pourrons tolérer telle une, euh, salaamaaleykum ñun njabootu waa eh, El Hadj Massamba ak ñeneen ñi nga xam ñëpp kii bi dox nañ seen eh, laal nañ leen ñoo dajaloo ngir leeral suñu li li liñ fi nekkee ndax eh, dañ ko awale ci yoon woo xam ne daal tee na suñu xel maanaam suuf si boo koy xool ñun dëpp ñu ngi ko yor depuis 1993 bon léegi ñoom xëy nañ benn bis signaloo góor gi benn ak de conciliation boo xam ne préfet Abdou Khadir Diop moo ko moo ko kii moo ko jiite. Mm-hmm. bon bi ñu ko signalee moom ba mu fay dem dix heures la fi la jógee ca kër ga ca vingt heures la ñibbisi ci mag moo xam ne am na quatre-vingt-dix ans mm-hmm. waaw léegi nag ñun njaboot gi ànd ñu ci tey ànd ñu ci ëllëg mm-hmm. ñu nag ñu nag ñi fi dajee ñëpp nag ku nekk am nga ci wàll ñoo ñëpp ci dañ fi am te kii ku mel ni góor gi daam daam ñang moom bañ bañ laal suufam ba léegi. moo dafa dafa dafa kii AVC sax hmm. mu jógatul waaw kon boog ñun président la ñuy woo fii acte ba mu jël fële mbuur kaat ak feneen feneen na ko na na ko jël fii bala fi dara di xew ñun kat ja lu lu leen jaral jaral nañu ko hmm. nañ jël nañ ñëw jël seen chèque ñu jëloon suñ suuf hmm. waaw wasalaam nangu tey duñ ko nangu ëllëg duñ ko nangu tey duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg déedéet déedéet du fi amee du fi amee xanaa ba kenn tëdd xanaa ba kenn tëdd xanaa ba kenn tëdd xanaa ba kenn tëdd fii suñu suuf si jël ñu suñuy bàyyi jere kon suñu suuf du dem tey du dem ëllëg dañ na dañ defal ñu koy yóbbu ñoo rey ñu dee ñun liñ des dem nañ ba kuy dem ba natt suuf dërën dërën nga koy natt suuf dërën kon kay nekkoo ci yoon mm. waaye ñu jox dimbali leen ñu ngir yàlla ak yoon di bàyyi suñu suuf si ñun moom la ñuy dundee nekk lu ci nekk lu ci ay ay ay ay lu ma xëq lu ma lële tuuti bureau nekk lu ci bureau ñun suñu suuf si la ñu am suñ gis ngeen gàncax gi mooy li la ñuy béy di lekk. suuf seeg nawet yeeg yooyu la ñuy dundee. salaamaaleykum yéen mbokki Sénégal mbokki Mbambilor man ba ma nekkee fii ba nëgë ni ëpp na ñaar fukki at maa ngi fi nekk fi paa bi tax ñu def ko lii mag la kon ay waa këram bu ñëwee fii am na loo xamante ni moom dafa mën a ñàkk man mii sama wàllu bopp ñëw nañ fii ñaari yoon ba ñetti yoon pour bëgg a dëkkatoon man kenn ko dagg ñu dem jël paa bi yóbbu ko yóbbu ko ca dénga ma fee téye ko fa ba ngoon mu ànd ak tafa tafa ba mu demee daa wàcc oto ba dem dugg ci otom toog paa bi dong lañ téye ci bureau ba ni ko boo signéwul boo signéwul dañuy nangu tool bi te duñ la jox dara xaalis bi ba tey ma nga ca banque ba xaalis baa nga ca banque ba ba nekk ni jógu fa waaw ay chèque la dong yu ñu bind teg fa chèque kese yu ñu bind teg fa la. xaalis bi mi ngi ci banque yi ba léegi kenn laalugu ko. kenn laalu ko mu nga foofu ñu teg ay chèque la ñu bind dong waaw njaboot gi nee nag moom seen bakkan lañ ci gar. bu ñu bëggee nañ ñëw jëlaat bu ñu bëggee nañ ñëw jëlaat seen xaalis bàyyi waat si suuf si waaw mbaa leneen dina fi am. salaamaaleykum waa Sénégal. ñun ay victime lañ aussi tamit ci ñun ay victime lañ ci problème bi parce que boo xoolee paa bi moom si njëkk nekk si tool fi la fi la nekkoon moom sax moo jox ñi sama maam bi naan Baba jaw moom moo occupé woon fii nii yëpp léegi sam papa moo fi nekkoon ñun fekk ñu juddooguñu woon sax ñun suñ tool bi nekk presque 3 hectares presque 5 hectares lépp lañ jël bi biñ ko jëlee nag convoqué nañ ñu jox nañu ay sommation ñu dem wuyu ji paa bi moo njëkk a dem wuyu ji ñu jox ñu ay sommation ne nañ fi jógee sans ñu ne loolu du mën nekk ñu nekk si ñu ngi convoqué ñu dem préfecture touché nañ maire touché nañ ñëpp ba finalement la ñu signaloo signaloo nañ parce que dañ nañ li ñu wax ñu signé dañu bu ngeen jëlul xaalis bi dañu ko yóbbu trésor te après pour ngeen jël ko beneen processus lay doon ma ngeen ñàkk seen xaalis léegi nag ñu sera ñu obligé ñu signé waaw mais nag xaalis bi yëpp mu ngi à côté laaluñu ko dara ñun daal li ñu bëgg mooy bu ñu mën a remettre suñu ay tool ñu remettre mënuñu ko ñu fay suñu ay droit légalement ak état pa bi depuis lors de cinquante ans boobu ba léegi mu ngi nee tëdd jour bañ daanelee tool bi mu ngi tëdd defoon nañ ko convocation tamit yóbbu nañ ko au niveau de kii nu mu sax tribunal ñu wàcce ko Descos bi ñu ko wàccee jusqu'à présent affaire amul suite ay victimes dañ li ñu bëgg daal moo ñu delloo ñu suñu ay droit lépp. ñëw jël seen xaalis. waaw man de damaa ñëw ci cadre njabootu Web Massamba Diop ndax góor gi man maa ko yóbbu woon ay jamono ci maire. muy mu maire recevoir ko audience mu expliquer maire li fi xew lépp maire boolee ñu ak Papa ñu ñëw Papa Ndiaye mu ni demal après nga nattal kii bi defaral pap yi nangam nangam bon ñëw nañ fi boobaag léegi presque mën naa ni xamatuñ si dara léegi nag waa Sénégal ñëw nañu raser nañu tool bi jël nañ huit hectares yi mu des deux hectares yi ñu taxaw deux hectares yi aussi nee nañ HLM ñoo ko moom léegi nag jël nañ góor gi dem négocier góor gi ci couverture préfet ba waxante ak moom ni ko léegi boo jëlu lii ñu lay jox dangay ngay ñàkk sa tool bon mu obligé jël comme góor gi mag la quatre-vingt-dix ans normalement waroon na am doomam yu ko assister parce que il a plusieurs am na doom yu bari doom yi nag ñoo ñëw tey ñu ni lii góor gi ci ñoom fële ñoom duñ ko seetaan d'accorduñ ci tey d'accorduñ ci ëllëg waaw loolu daal mooy taxawaayu tey bi léegi nag ñoom danoo ñëw pour consulter nii rek mais xam naa ni fan yi di ñëw ñoom ñu ngi waajal ab ab rajo ak waa mbéy comme chef du village dafa dem Màkka ah ñoom ñu ni dañuy xaar ba mu ñëw ñu door xool li ñuy def nee na daal ñoom d'accorduñ ci tey d'accorduñ si ëllëg bu ñuy renégocier na ci famille bi yëpp toog ak góor gi ah ni président Diomaye arrêté Mbour 2 na arrêté fii ba ñu leeral lii ba mu leer naañ ñu delloo leen suuf wala ñu xool nit doom yi impliqué ci négociation bi ban xam li li li waral jël bi yépp loolu daal moo doon kàddu yi man nag ci côté euh, ma Samba joob laa bokk fii laa féete waaw asalaam. jërë ngeen jëf mbokk yi kon gis ngeen euh, li fi am nii fii ci Bambilor mu doon loo xam nag lu daw yaram la góor goo xam nag daanaka jege na téeméeri at ñu ñaan yàlla mu romb ko lu bari di wéy ànd ak wér ak wérle àddunaam yëpp mu def ko ci jaamu yàlla ak liggéey ak wéy ci ndigal. toppatoo njabootam nekk ci toolam euh, ay ñu kenn xamul jóge fële bëgg a ñëw dëbb linjaa ay hectare am lu ma lépp dix hectares te daloon na ko ci plan jaxaay euh, boob ba léegi mi ngi topp lool trente six hectares ba léegi bàyyeegul ñu ñëw fii bëgg kii bëgg koo tàngal mais ñi ne na duñ ko bàyyi mu sedd duñ ko bàyyi mu duñ ko bàyyi ëllëg duñ ko bàyyi tey dañ ciy dem ba jeex fu mu yam neex ndax dal moo nekk ci dëgg yor kéet yoo xam ne que lépp fanweeri at la nit ki jóg deux mille vingt deux deux mille vingt trois bi ñëw di xëcc njëkkanteeg élection yi euh, pour bëgg dox ci maay kenn njaboot gi duñ ko nangu. buñ jàppaate beneen nag nee dina gën a ñàng jigéen ñeeg góor ñeeg mag ñeeg ndaw ñeeg ñi nekk Amérique ak Italie yëpp dina ñëw dem ci bu baax baax a baax lool nag balaa ñu fay àgg dañu ñaan ku mën a jàllale message bi président jomaay fay jot ci président Ousmane Sonko jot ci ndax lan ñii góor góor góorgóorlukat yi euh, ay patriote lan kenn warul dox jël seen alal ci seen tey bakkan ñi jël ñu alalu kenn danoo nekk ci dëgg di liggéey ak seen tool sàmm bay dunde jaamu yàlla wecci ndigal ci la alaaji Massamba Diop nekk ak ciment bi ba ñëpp xam ko ci bu baax a baax a baax kon waa seen Senegindia yi ak SN HLM nan teggi loxo ci alalu jàmbur loolu des ko tamit bu ci defee dara mu dindi ci lim ci def ngir loolu rafet bu baax a baax président Diomaye nag booy woote wooteel ci numéro bii ngir yàlla nga jàppale ñu bu baax a baax a baax numéro 76 683 94 01 77 600 76 683 94 01 wala nga def 77 543 03 03 di nga jokkoo ak njabootam ñu wax la ci lu leer bu baax a baax a baax a baax di nga jot kii di sëñ Amsa Diop wala nga jot Thierno Diop euh, ngir ñu indi la fii ci Bambilor hectares yi nga xam ne que moom la seen a ginjaa bëgg a teg loxo te du yoon. lii du lu ndaw ay hectares la bu dee président Diomaye mi ngi am 44 euh, ans ci avril bii passé. kii nag kon fii 31 ans comme boobu bi président Diomaye di am 9 ans la paa bi yoroon suufam kon ñëw ba heure fii am ñu jóge fenn ay indien lañ xam ma ñëw bëgg a jël mbiram duñ ko nangu lu réew mi pour waa réew mi la ay patriote lan ku bëgg lu baax da ngay def yoon te kii moom danoo yoo président dafa woote jub jubal jubanti kon ku ni jaay doole. ñëpp nañ ko yëgandoo bu baax a baax a baax kon Cheikh Bara Ndiaye maa ngi wax président Sonko yëg ko léegi Birame Souleye Diop Sonko Sonko yëg ko léegi Diomaye yëg ko léegi ñu taxaw ci léegi comme Diomaye na mu defee woon ci coowal ndeg leer la lii amaat na fi ay góor ay mag yi jëmm fi toog te kenn du dox seen maay bu baax a baax njaboot gaa ngi fi ah. na woote ci numéro yi numéro yaa ngi nii ñëw jël seen chèque. nee na chèque bi kenn laalu ko seen xaalis boobu. chèque bi kenn laalu aram na leen waaw kenn laalu ko kon nag euh, Oumy Kane a ngi fi Thierno Diop a ngi fi Mohamed Diop a ngi fi euh, Tafa Diop a ngi fi ah, Khady Gueye a ngi fi Mbaye Diagne a ngi fi Mame Gueye a ngi fi euh, kii Baye Massamba Diop a ngi fi Mohamed a ngi fi Taaxa Diop jóge Amérique ñëw Abbas Diop ñëw Adja ak jiite ñëw nan ak Tidiane ñëw nan Mor Pam Mor Talla Diop ak Diarra ak Assoumbel ak ñëpp ñëw nan bu baax a baax ba ci waa Tindóor yi ñoom euh, ñoom Alaaji ñoom kii ñoom kii sëñ Ndiaga ak ñëpp daal ñëw nan pour teewlu ci mbir yi bu baax a baax a baax lii dulu ndaw te nag nee nañ bu buñ ci gaawul taxaw dina ëppi loxo balaa muy àgg foofu nag waa eseen HLM ak seen a seen a seen a Gindia ngeen teel waa yéen ñu teg te yéen ñi fay jënd nag yéen a ngi ci risque seen a parce que fii am na coow de mbir yi am na coow. jugal sa xaalis ba pare coowal suuf amoon na jamono ji régime yi njëkkee mais régime président Diomaye ak Sonko moom dëgg rek ak leer moo fi am kon ngeen bàyyi ko xel baax a baax waaw administration bi taxawul waa réew mi taxawul waa réew waaw hmm. parce que administration hmm. da nga war a taxawal sa doomu réew sa doomu réew waaye danga leen nëbb hmm. di leen corrompre loolu dafay jeex waaw administration bi Diomaye baaxut jubbanti ko mooy baaxul yëpp ba léegi nii sax jubagut te daa war a jub mmh. administration bi daa war a jub mmh. waaw koc waaw koc waaw parce que jël alal réew mi di jox jàmbur mmh. dafee war a jóge te doom réew mi nekk fi kenn mënu fee dem France wala Inde di am ay terrain ki kër ak immeuble mënul nekk kon kon fii ci euh, suuf réew mi pour waa réew mi ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax a baax Baye Massamba Diop ba nekkoon ci équipe technique bi waaw suñu autorité yi yenn maires yeeg yenn préfet yi ngeen bàyyi di def yooyu lii Tapha wax nag nit ki nag boo nekk ci administration bi dangay doon patriote looy signé nga xam ko looy def nga xam ko xam ne yow lii ngay signé nii valable pour yow kese te loo ci def it dina feeñ président Sonko la juddu woon avant Abdoulaye Wade yëpp ba legi système bi lu fi lëndëmoon dinañ ko leeral te boobaa kuñ ci tudd ne sa maama fi def lii dina ñaaw dee leen signé ci lu leer di wax ci lu leer bu baax a baax Tektal TV écouté bi ànd Mohamed docteur Wade bu Casamance ba ma Samba Diop nekk ci Petit Sow nekk ci Gaw Sow soxna Mbaye Diop ci réalisation bi gërëm nañ ñëpp Tektal TV xéwal dikk loraange dakk jaajëf